waaw solos bis bi de mooy daje nañ fii tey ci Mbàkke doon amal tej teg final départemental yi ndax loolu dafa nekk lu bees lu ñu indi ren mooy dañ ko tijjee woon Tiwaawan mais ñun ñëpp ñu dëppoo defee ko fii ci Mbàkke waaye ñu tànn tam péncum Daaru Salaam dara jaale ko ki nga xamante ni mooy sëriñ Abo Mbàkke gis nañu bis la boo xam ni bu doy waar la ci ñun ndax liñ séentu woon ci xale yi gis nañ lu ëpp loolu kon xale seen niveau gis nañ niveau bu baax la njàng mi dégg na ci aw yoon loolu tax na fi mu ne ni département Mbacké cinq la waroon a présenté mais dina présenté di kandidaa fi nga xamante ni mooy final régional bi nga xam ni moo ñuy dëgmal fii ci Diourbel ci weer wii di ñëw incha allah. Ah, li waral ñu tànn ko mooy dañoo xam ni dëkkub alquran la dëkkub sunu maam xaadimu rasul la ku ne xamoon taxawaayam ci alquran ak fi mu tegoon alquran kon njabootam jaadu na bés bu mel leen ko. sëriñ Ablaye Dia mi nga xam ni moom la yàlla baaxee mu organiser concours bi ci alalam sëñ Abo mii dëkk Daaru Salaam di sëriñam kon dana jaadu jagleel ko bis mel noonu ngir terale ko sëriñam. candidat yi li ñu leen di tànnee mooy bu ñu ñëwee dañuy préparer question yi dinañ leen laaj ci kaamil bi yëpp kaamil bi boo ko xoolee juróom benn fukki isib la ñaar fukki isib yu nekk ñu am fa benn laaj bu ñu leen laaj bu ko defee xale bu jëlee ñetti laajam tontu ci. loolu jury bi da koy noté bu ñu paree ñu xool kenn ku ne li nga am ci ay points buñ ko calculer pour nga mën a qualifier minimum di nga am 65 points soo amee 65 points jëm kaw yow qualifié nga su boobaa nag ñu xool 5 premières yi wala 10 premières yi kon ci anam googu la ñuy tànni xale yi tatam tam ñi leen di tànn tam kenn dëkkul Mbàkke ay étranger lañ ci ñoom ndax ki ngay àtte boo ko xamee doomu aadama xolam dafa gaaw a sot moo tax ñu indi ñoo xam ne dëkkuñu Mbàkke xamuñu xale yi xale yi xamuñu leen kon anam googu lañ leen tànne euh, xale yi gën ràññeeku incha allah ren euh, pay bi dana am euh, ñaar fukki million maanaam ki jël pay dina am 20 millions plus e màkk loolu mooy loo bi gën a rëy deuxième bi dana am 10 millions tam ak billet màkk troisième bi am 10 millions quatrième bi am 8 millions cinquième bi am 6 millions loolu mooy xaal xale yi ren incha allahu taala ñu ngi koy tëjee incha allahu taala fële ci Kaolack foofu mooy tëju finale régional yi mais grand théâtre nag mooy tëj tëgu mag gi kooku mi ngi nekk dimanche le 3 mai 2020 yéen ñëpp tam ñu ngi sàkku seen teewaay.